moom day seen loxo seen loxoom génn ca waaw ñu jàppale di nu tette dimbali di teg ci yoon waaw ñu ngi sant bu baax waaw. ma bu mu musul gis ci yow ah, feet la ak cant de da bëgg tey bëggle kon nag mo mo loolu moom du du du lu yees. Euh, euh, safar moom boo ci nekkee màggal boo ci nekkee dangaa war a bëgg waaw di ko di ko di sant bu baax rek. jërëjëf yokkute moo amul tànki tànki gannaaw Serigne Touba lu mu tàbbi lu ne kanam la jëm te nag Serigne Mountakha bim naan ma doxalal. bu benn baa ñaari nit rek ànd ak yow nga xam ni faw nga am ndam loolu ñu àdduna waa ngi koy dégg kon moom ñaa ñaanag Serigne Touba ci faaw mu jëm kanam waaw jërëjëf. di ànd ak wér. waaye léeg-léeg papa di nga dem ci sunu sunu maam sa waajur wa Cheikh Béthio. Ah, loolu kay mënta ñàkk kooka kay kenn mënu koo fàtte. rawatina nag man mi fi ne war a jàpp ni ma war a liggéey war a wéyale liggéey bi xam nga ni kooku mi ngi ci man du jóg ci man mukk ba ma koy fàttaliku sax du lu may fàtte loo xam ne yaa yaa mi ngi ci yow nga koy dund bis bu jot heure boo xëyee noyyee mi ngi ci yow ah loolu mënoo ko fàtte ñu ngi koy dund saa su ne jërëjëf baax yombul waaye mu ngi assuré bu baax a baax mu ngi assuré bu baax a baax te seetlu nañ boo boobaag léegi day gën a yokk depuis ba daaw jéeg bi mooy troisième màggal nekk fi waaye wax dëgg yàlla mu ngi dem kanam ñu ngi ñaan ci barke Serigne Saliou mu gën a jëm kanam te xam nañ ne sax am nañu rafet njort ne dina jëm kanam màggal gi lépp lu nga xam ne sëñ ci bëggoon na ko ci def nañ nga xam ne Serigne Saliou tam loolu la bëggoon maanaam bernde ren di bég day bégle bég day bégle ñu ngi si ñu ngi bég ñu ngi bég ñu sëriñ bi lépp mat na ñu sëñ Béthio daan defal yëpp defal nañu ko jox ñu lu jënde ay yére yu ñu sol ñu ñu ngi nii jox nañu ay nag lépp maanaam lépp lu war daal li sëñ Béthio daan def def na ko taalibe yi aussi noonu daal li may wax daal gàtt gàtt mooy ñu ngi sant bu baax di sant cantaakoo yi bokk taalibe yi ñoo xam ne kenn lañu dañoo bëgg sëñ Béthio ba bu sëñ Béthio làqoo ba tey seen jëf jëmul gannaaw kanam rek la jëm ñu ngi gën a am pastéef ñu ngi gën a am ñu ngi gën a bëgg sëriñ bi te boole ñu suñu soxla yi def ñu ñu sëñ Béthio loolu ñu sax daf ñoo jomb donc daal grosso modo ñu ngi sant bu baax di ñaan màggal bi ñu def koy at yu bare barke Serigne Saliou Serigne Saliou ndigal yàgg ñoo jiite ñu ànd moom di siyaare suñu Cheikh Saliou suñu sëriñ moom laa waroon njëkkee maa ngi koy tuub siyaare suñu Mountakha ñaar mu yàgg fi wér moog sant bu baax ma leen di wax comme li ma wax léegi rek ndax ñoom dëgg yàlla borom Pastef lañu ñu ngi ànd ak Serigne Saliou ñu ngi ànd maanaam ni ñu àndeek sëñ Saalum Ndigal mii noonu la ñu àndee woon ak sëñ Béthio donc loolu moom def ko lu sant leen dëgg yàlla ci seen doxin ci seen pastéef te comme li ma la wax léegi yëf yi dafa gën a yokk daaw ak daaw jéeg ak ren bokkul gis na nag yeew donc yokkute daal lañ ci gis te di leen sant ñoom bu baax a baax seen ngoon ak lépp daal ñu ngi sant bu baax. sëñ Saalum rek sant Cheikh Béthio. mu ne ne yàlla suuf sedd ci kaw nañu yàlla taas ci barkeem ñu ngi santaat Serigne Saliou bu wér ñu ngi santaat Serigne Saliou bu wér sëñ sëñ Saar borom digal di siyaare sëñ Mountakha Bassirou di siyaare sëñ Cheikh sunu sëriñ di siyaare sëñ Saar borom digal donc siyaare di ñaan yan bi oos lool ci kaw dañ koy siyaar bu wér dañ koy siyaar bu wér palaasam bi mu toog yàlla na ko tooge jàmm ak salaam yàlla yàgg te wér barke ah, moom di jógu fi at mu nekk day gën a dàq at yi bu fi jógee ba tey at mu ñëw day dàq mi ci des waaye bii nag moom ren dafa moom dafa loolu dafa ala daw mi bii moom tubaarkàlla santaat nañ ko ci bu wér moom jógu fi mi ngi si jataay bi jógu fi jógu fi moom mi ngi fi xool li xew fii li xew fii